le 30 juin lay demal lay demal li nga xam ne mooy officiellement mais est-ce que tamit amul retard parce que sànq président mu ngi koy mu ngi koy junj sax parce que na ans pour daw li nga xamante moo di 9 secondes kon ça veut dire euh, maanaam préparer jël temps préparer li nga xamante moo di euh, euh, Jeux olympiques de la jeunesse yi am na njariñ trop en plus boo ñu mën expliquer tamit comme interpellation bi nga xam président wax na ko mooy ciblage yi naka ngeen def ba ciblé ñi nga xamante moo di maanaam les athlètes yi ko war a participer si jeux yi euh, ak li nga xamante ne moo tamit par su Arouna entrepreneur ci li nga xamante moo jëm ci wàllum euh, préparation bi. merci beaucoup Babou. Usain Bolt s'est préparé 4 je me suis préparé 4 ans pour me qualifier pour les Jeux Olympiques de Rio. <laughs> C'est clair. Pour préparer des athlètes, il te faut un cycle de 8 ans. Un cycle de 8 Aujourd'hui je vous parle, sur chaque sport, chaque discipline,

vous avez le comité olympique et le ministère des pour préparer les athlètes sénégalais différence aujourd'hui la préparation c'est l'État du Sénégal représenté par le ministère des sports les fédérations au Sénégal ont commencé leur préparation pour les Jeux le taekwondo était à l'alerte nationale de lutte des VSD quotidiennement la natation a un groupe d'élite

Et le directeur technique, euh, la semaine dernière, on avait une réunion ensemble, c'était pour voir où, il va faire en fait euh, championnat de futsal pour les u et les u Parce que la Fédération sénégalaise de football, wax na ko léegi am nañ dispositif boo xamante ils peuvent mettre les athlètes dans dans des centres de préparation ils ont déjà fait une détection entre les académiciens et les sélections mhm. moo taxoon ñu def l'année dernière les euh, niveau de mais c'était un pôle boo xamante ni c'est la fédération moo ko def détection c'est pour vous dire que aujourd'hui ah. l'heure je vous parle mm-hmm. toutes les fédérations vous me donnez une fédération mm-hmm. je vous dis quel est leur plan stratégique l'athlétisme je suis au courant de tout leur plan stratégique pour les Jeux de Dakar 2026 mais baal kon yore comme baal bu ñu xoolee bu ñu explication euh,